dal leen ak jàmm mbokk internet yi Serigne Modou Kara Noreyni mu ngi def buzz ab audio bu senn ñu di ko ci tudd ñëpp di laaj ndax ab soxnaam la doon waxal wala sax ab soxna soo xamante ni daf ko doon labat ci mënti am boobu lay waxtaan bu mu amal ak soxna si di ko yoo ci turu Umu Sàll mi ngi lëmbee internet bi ne fàng ci réseaux sociaux yi ñëpp jot ci ku nekk da ca wax te boo xam ne sax te ñi cay wax yenn ci ustaas yi waaye ana lan moo nekk ci boobule audio nañu àndandoo déglu ko. ci ci ci longanimité ci patience waaw da nga ci patience nga xam da may assister ba noppi te Serigne Touba rek tax waaw mm. xam nga couple moom fa dem am na fa mais dafa am xeeti couple yoo xam ne dafa significatif nekkul couple kese mm. te sama mission fi ñu toll nii bientôt yàggatul mm. yàggatul ñëpp dinañ bëgg doon ci man dara waaw ñëpp dinañ bëgg a doon ci man dara moo tax rek waaw xam nga man sax daaw daaw ma wax yi jigéen mais comme yow dafa am loo doon ci man sama doom nga bi sama lépp moo tax ma lay wax ji mais man jigéen dama ko daan bàyyee confiance am. waaw surtout intellectuel mais yow. da nga dafa dama dama laa découvrir te ngay jàmbaar. waaw ba noppi nekk nekk ko courageuse daal nekk soutien de famille et cetera. te liñ toll jafe-jafe finance bi yépp moom leen mu jeex moom. waaw financièrement loolu moom. Hmm. lu yàlla jeexal la. mais bu ma doon yow daal da ngay kii bul bul bu ma doon yow daal da ngay xam ni yow moom. Hmm. da maa war a da maa war a topp jox ma si bopp à cent pour cent te Serigne Touba rek tax. Hmm. waaw hmm. te Sëriñ Tuubaa rek da nga xam ne du ay affaire couple du ay affaire lenn loolu boo ko defee rek bu ko defee dinga ci waaw dinga dinga siggi balaa yàgg moom incha allah hmm. mu nga satisfaire say mbokk ak say xarit ak yooyu parce que loolu laa la yéene waaw ah, d' accord bu ma la yiliful san cent pour cent itam defal la li ma la bëgg a defal waaw bu jotee waaye nag damay bëgg loo xam ni lu gën a porté bëgguma kenn doon ci yow dara daal waaw bëgguma kenn am ci yoon dëgg la am na pour parcours boo def ndax umuril insaan yaamaru bi tadrijihi waaw maanaam destin étape la rek par étape am na étape boo jaar ak yooyu mais étape bii nga tombé ci man ak li jëm ci kanam hmm. waaw man des na tuuti ñëpp dañuy am ci mën a yoon des na tuuti télécommande yëpp maa koy yor hmm. waaw te loolu nag sa assistance daf ma doy parce que hmm. damaa damaa xam sa volonté ak sa courage moom laa xam waaw donc moo tax nag euh, da ngay kii li nga xam ne mooy affaire u sëyeeg affaire u déggoog affaire u giseeg yooyu yëpp da nga koy jaay jënde ko rek liggéeyal Serigne Touba ci sama wet boo ko defee rek waaw da ngay def daal mais bu bul kii parce que bëgguma kenn am ci yow yoon parce que jigéen hmm. fi ñu toll nii lu ma la bëgg bëgg a liggéeyloo fi ñu toll par exemple boo amoon beneen jëkkër rek hmm. il faut am lu manqué il faut am lu def waaw il ah. faut am lu def ci ni ma koy bëgg ci yow ah. loolu laay bañ te damaa xam ci sama mbir jëm ah. waaw fi ñu toll des na tuuti des na tuuti séddale mooy doon sa métier séddale séddale <laughs> ah c'est vrai parce que noonu la sama na wane ci man lu jaaxal ñëpp loolu yàggatul sax. dëgg la. moo tax mu ñëw tuuti rek mu ñëw ma si yaay dégg nga. Mm-hmm. waaw lu déglu ma fan yii laa la yóbbante ci moom. waaw d'accord incha allah. ñoo ko déggandoo doy na waar donte na rakkam ji di wuyoo ci turu maam Cerno Birahim Mbàkke ñu gën koo xam ci Birahim Ñaa mu ngi we leeral ni bile waxtaane bu sëriñ du Kara mu ngi ko amal ak soxnaam suy wuyoo ci turu Umu Sàll ñu déglu ko ci ay kàddoom mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu di leen jaare bu baax ñu ngi jiital ci nuyoo bi di sant di jaare sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wér di sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax di ziare suñu sëriñ suñu mag suñu lépp muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ah bu ngeen gisee ma def ojo bi nag man la maam Thierno Birahim Mbacké ñaa ñi gën maa xam ci Birahim Niang ma nekk petit frère kade de Mbembe maire de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mu am ojo boo xam ni mi ngi circuler partout ci soxna sëriñ bi ku tudd Oumou Sall moo enregistré sëriñ bi Oumou Sall moomu yaayam ci boppam mu ngi tudd Mame Boussa Wade bu sa wadd soxna Yacine Ndiaye mi nga xam ni moo nekkoon soxna sëriñ Ousmane Mbacké norini dafa amul woon doom ak sëriñ bi te amul doom rakkam joxoon ko Mame Boussa Wade moomu nga xam ne Mame Boussa Wade moomu ci kër siid naa Ousmane Mbacké Noreyni la yaroo kóllëre googu nga xam ni soxna Yacine Ndiaye amoon na ko ak sëriñ usmaan ba nekkoon ca Chikoori daan fa liggéey liggéey bu rafet nekk ci loxol Mame ma Sëy jëf ju rafet jooju mu doon def loolu moo tax sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni baax mi doon dabu googu ba jël kii nga xam ne mooy Oumy Sall ngir nekk sëtu soxna Yacine njaay soxna Oumy Sall moomu nag moom la sëriñ bi doon waxal moo enregistré sëriñ bi bi mu enregistré sëriñ bi nag moo jël ojo boobu envoyé ko xaritam bu jigéen ñi daal di koy tas information bi waaye yéen mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñi leen di xamal ni ojo yooyu ngeen di dégg noon yi di ko tasaare ummi sàll mi nga xam ne soxna la ci sëriñ bi moo def jëf jooju xëy na ba mu koy def sax jubluwu ci lu ñaaw waaye dafa doon enregistré sëriñ bi pour yónnee ojo bi benn xaritam di ko xamal digganteem ak sëriñ bi rek ci lu rafet kon nag audio boobu nag mbokk jullit yi bëri sopp sëñ Modou Kara ñi ngi koy naqarlu ndax man information bu nekk maa ngi koy jot partout fu nekk te ñoom xamuñu ki def audio bi kan la waaye ma xamal leen ni soxna sëñ Modou Kara ñi leen di xamal ni nag audio boobu képp koo xam ne dégg nga ko soxna Umu Sàll mi nga xam ni soxna sëñ moodu karaa la moom moo ko def kon nag nañu bàyyi enregistrement yi ñuy def kilifa yi ndax soxna ay Aida Diallo fii la wax ne enregistré na Cheikh Béthio Thioune enregistrement yi mi ngi moom kon nag nañu bàyyi sox sa kilif nekk ak sa borom kër wala nga nekk ak sa kilifa di leen enregistré loolu kenn rafetluwu ko te lu ñaaw la jëf ju ñaaw la jëf ju salte la ñi ngi balu àq tey jéggulu wax jii ma wax na kenn waxloowu ma ko maa jël samay responsabilité wax ko parce que sëriñ du Kara sama mag la sama sëriñ la sama doomi ndey ñu bokk ndey lu ko naqari naqari na ma te lii metti na ma trop bu fa kanam yàlla metti taaliba yi bëri moo tax nelawuma guddi nelawuma bëccëg parce que téléphone yi ak audio yi fu ne lañ ma koy lancé asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye si gannaaw loolu moom soxna Oumy Fall moom nday mbi li gi nga xamante ne moom moo enregistré boobu le audio génn na wax ci mbir mi ngir seetal deru borom këram delloo noonu sëriñ Modou Kara yi ca seen place weddi tuuma yi ñu teg ci derub sëriñam di borom këram di sëriñ moodu Kara doon wax ne beneen jigéen la doon waxal waaye moom milee di Oumy Fall mujj na leeral mbir ni xam ne moom milee di soxnaab sëriñ Modou Kara Mbacke Noreyni moom moo doon wax ak borom këram ñu àndandoo déglu ko sëriñ Touba man la soxna Oumy Sall Kara Mbacké euh, madame Mbacké soxna Cheikh Amadou Kara Mbacké di doomam di taalibewam ku ma xam xam ne sëriñ bi dama moom ma farak moom nag ci biir ak ci biti dafa fekk ni dafa am waxtaan bu yàgg bu ñu amoon mu nekk di circuler ci réseaux sociaux yi mu mel ni sëriñ bi day wax ak jàmbur te waxul ak jàmbur man mi la doon waxal di soxnaawam comme tout couple normal rek waa am problème jafe-jafeñ war ci waxtaan fekk ni man newuma Sénégal war a mën a wax samay waajur tamit moo waraloon ma enregistré waxtaan bi di ko yónnee nag sama waajur bu jigéen def mauvaise manipulation mu dem ci loxoy keneen donc mauvaise manipulation tax na mu dem ci loxoy keneen waaye nekkul loo xamante ni nii ñun sax dañ ko joxoon importance boo xamante ni ndax xalaat ñu nekk na information bu ma jëriñ Sénégalais yi dara bañ war ko mën a dugal ci ay site wala ay réseaux sociaux waaye nag jubluwuñ ci lenn ndaxte man Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sama digganteeg moom nekkuma ci situation boo xamante ni dama ko war a def ay enregistrement pour di wane ni ndax daf maa bëgg wala daf ma considéré fi mu ma teg xam naa ko te ñëpp xam nañ ko kon nekkuma loo xamante ni nii daf ma dama nekk ci boobu besoin mais seulement li ci doy waar mooy dafa am ñu ko jël di ko ŋawti ŋawtee di ci wax am na sax nag benn sax benn waxtaankat bu nga xamante ni mu ngi ci naan waa am na ñoo xamante ne nii si yenn yi dañ leen a téye si ay audio di ko xamal rek ni ko moom moom donte day dund Serigne Touba kon war naa jël enregistrement boobu daal di koy tegal ay soxnaam rek bu ko defee soxna yi xam tamit ni ñoom it bu ñu ànd seen borom kër yi dañoo war a liggéeyal Serigne Touba te yàlla tax waa boo amee kilifa yan décision il faut nga wax ko yan base la nga ko teg pour jël ko donc fallait que nga wax ko aussi nga xamal ko rek ni ko dalal xelam comme man ni mu dalalee sama xel que bu ma ko jàppee benn nit moom jàpp na ma ñaar waaw man li ma ñor rek moom mooy liggéeyam ak jaayante woon waaye lii day jàngale rek man de dama ni Sénégal nañ ci jànge rek ñu gën a xam kan mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni parce que moom biiram ak biteen yëpp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la ciy ñun de ci la ñu nàmpatal li ñu xam néew xamuñu woon dara nag mënuñu dara waaye nàmpatal nañ ci Serigne Touba fu mu mën ci toll nàmpatal nañ ci Serigne Touba moom na loolooy mission wam nañ ko xamee noonu ñu xam ne mission moom bu dégg bëccëg subaa ngoon ci Serigne Touba Mbacke Xaadimu Rasuul te képp ku nekk moom it ca ngay nekk ah ñu ngi jéggalu xanaa di leen wax rek ne leen lii waral lii moo sababoon vidéo bi eh, waaw lii moo waraloon moo sababoon vidéo yi rek waaye di leen wax ne ma du Kara Mbacké ni moom kenn du moom eh, di wax rek ni man moom fas yéene takkaat rek samay laxasaay rek mu gën a dëgër rek fas yéene liggéey ci wetam ci ngir Cheikh Ahmadou Bamba Khadim nu mu ko bëggee rek nu mu ko bëggee yéene jëfe sëriñ Tuuba gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni le guide de la révolution pacifique du Sénégal